asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, Senego TV donc tey ñu ngi dalal euh, Moustapha jaw muy président mouvement social jaspora nekkoon aussi président commerce commission finance à la mairie de Dakar actuellement nekk candidat mairie Hann Bel-Air sous la bannière gox yu bees monsieur Diaw ñu ngi lay nuyu. lay fay Khalid Camara jërëjëf di nuyu waa Sénégal yëpp vraiment di nuyu. téléspectateurs yi ñuy di leen wax dal di leen dalal ak jàmm ci mhm. dimanche bi ok ñu ngi lay en fait euh, boo xam naa ñu dugg avant ñu dugg dans le vif du sujet on va on va parler un peu actualité boo naa suivre nga ko un peu euh, si réseaux sociaux yi. Mhm. donc avec le cas de Djibril Ngom qui a été euh, reçu par le président Macky Sall Djibril Ngom suñ ko waxee mooy le mandateur de la coalition Yewwi Askan Wi bi nekkoon au niveau de Matam dawoon ak liste yi donc mhm. yow par rapport ak audience boobu aussi ban analyse nga ci def. voilà euh, damay delloo nuyoo rek euh, suma commune. Mhm. muy commune Hann Bel-Air. Mhm. la bannière gox yu bees. Mhm. Euh, su ma nee gox yu bees mooy nekkuma yeewi askan bi. nekkuma Benno Siggil Sénégal. Benno Bokk Yaakaar plutôt. nekkuma foofu. kon su ma ci waxee damay wax sama dëkk rek laay wax ko am en tant que citoyen quoi. voilà man dama rafetluwul euh, un un acteur politique buy daw ak mhm. buy nëbbatu ak ay quel que soit bord bi nga bokk éthique nangul accepté wul loolu daal. non mhm. mhm. parce que c'est vrai que aussi euh, à travers loolu gars yi ñu ngi naan le président Macky Sall il fait un peu la promotion euh, de la euh, corruption wala médiocrité wala yooyu aussi donc. en fait on est dans un combat en politique je pense que généralement les gens regardent la finalité. le résultat politique qu'est-ce que ça amène. Mhm. comment on a fait pour construire la tour Eiffel nit ñi toppatoo nan la ñu mobiliser les ressources ou bien même le monument de la Renaissance ça a fait un débat. Mhm. aujourd'hui ce qui nous intéresse plutôt ce qui intéresse les acteurs politiques au sommet. Mhm. c'est le résultat. la personne qui qui a qui a fui ak euh, listu Yewwi Askan bi. Mhm. lan la leen di jural quoi. Mhm. exactement donc est-ce que aussi du renseigner par rapport ak euh, un peu ce qui euh, yi ñëw au moment où gars yi doon casse amoon na temps aussi par rapport ak transfert d'électeurs yeeg yooyu donc yooyu est-ce que nekk nekk c'est pas un signe annonciateur par rapport ak li ñuy xaar ci yi. waaw ndax euh, daw ak liste du tey am na ay élections yu fi jàlloon am na ñu ñu tëjoon ak ay liste ci chambre wala perdre leen quelque part pour ñu am retard pour ñu forclos et tout mhm. euh, damay gis ni rek euh, tey ci tey loolu bu ñu ko sanctionné woon mhm. booba jamono mhm. bii duñ ko xalaat ba di daw ak ay liste ba président di la recevoir ba ci ay honneur rafetlu ma ko mm. beneen bi tamit tey bu ñu xoolee élection yi ak transfert d'électeurs et tout je pense qu'on a des autorités compétentes. Mmh. Il y a la mairie, à la sous-préfecture, préfecture, jusqu'au gouverneur, jusqu'au président de la République, mmh. en passant par le ministre de l'Intérieur et tout. Quand tu as une transfert d'électeurs douane, mhm. et que le maire gagne mhm. dans la beauté et okay. dans la joie. donc par rapport ak aussi ak euh, la bataille de la ville de Dakar donc euh, ban analyse nga a andi surtout par rapport ak euh, deux candidats donc yi ñuy considéré pour le moment comme les muy Barthélémy Diaz ak Abdoulaye ñëw ci Barthélemy Diaz ak euh, Abdoulaye Diouf Sarr mhm. euh, des camarades que je salue euh, damay wax jeunesse bi quoi ndax man falu naa ville de Dakar de 2009 à mhm. nekk vice-président de la commission des finances et des affaires économiques derrière Abdoulaye Makhtar Diop mhm. ancien ministre quand Wade l'a nommé ministre il m'a il a fait de moi le président son remplaçant de la commission des finances et des affaires économiques au niveau du bureau administratif un vendredi alors euh, kon xam naa fa tuuti. Mhm. parce que j'ai été assidu ah. j'ai été assidu pendant cinq ans. aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se réclament. Mhm. je vais taire les noms. de la ville de Dakar. qui veulent briguer ce mandat. et qui n'étaient pas assidus. en ce moment. ils se reconnaissent à travers ce que je dis quoi. Hmm? kon tey euh, ville de Dakar du muy suivre la. Khalifa nekk ni jafe euh, l'ancien maire. fexe nañ ba euh, so euh, madame Soham Wardini ñëw remplacer ko fa. Mhm. Euh, mu créer ay problème mhm. parce que ku mel ni Moussa Sy le maire mer na ci. Mhm. dem yoonam ku mel ni le maire Banda Diop mer na ci. dem yoonam sans compter bien d'autres qui n'ont pas dit leur nom. ok kon ville yàgg na yëngu. n'est-ce pas. bu ñu ba benn moment ku mel ni de Dias taxaw samp ndëndam dafa bëgg ville c'est légitime. ok ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr taxaw samp ndëndam ni dafa bëgg ville de c'est légitime. Mm-hmm. mais avant ñuy agsi ci Barth bi muy bëgg. Mm-hmm. am na ku fa nekkoon muy madame Soham Wardini mm-hmm. dans la continuité avec le Yewwi Askan bi ou le. Taxawu. Euh, am na nu kilifa yi Yewwi Askan bi doon positionné wu. ñu bëri ci Sénégal ni Soham Wardini la ñuy jàppale. dem ba ñu ni. Euh, Euh, protocole bi wala note bi baaxul parce que parti mi ngi forcé dañ ko war a mhm. euh, ñëwaat defaraat ko et tout mhm. mais wax jooju jëmul kaw mhm. dañu mujj ñoom ñëpp topp ci ginnaaw baat di tàccu mu xaw a jaaxal nit ñi dafa mel ni politiciens yi aussi ñoom leen lay arrangé rek casquette boobu rek la ñuy sol quoi vous comprenez kon coow li euh, commencé wul tey suñu defee jeunesse bi mais tey bu ñu demee ba jusqu'à la Euh, jusqu'à l'approche des élections mhm. ñu tudd ñaari candidat mhm. ku mel ni Barthélémy Diaz ku mel ni euh, Abdoulaye Diouf Sarr mhm. c'est normal a de de l'eau quoi. donc soo xoolee sax même soo xam en quelque sorte dafa xawoon gerte par rapport ak loolu euh, dem créer benn si si beneen rajo ci beneen coalition pour mën a briguer aussi un mandat. bon d' madame Sow man je pense que bi ñu koy bi ñu koy nommé maire. fekk bokk naa ci ko njëkk woo. by WhatsApp. Mhm. di ko félicité. Mhm. Euh, bi loolu weesoo tamit euh, euh, bien que nekkaatuma woon ville Dakar. Mhm. mais par rapport à la multinationale pétrolière bi ma nekkoon. teraanga bu ma gis rek yéene naa ko ville ñoom ñi ngi may dégg xam nañ li may wax dëgg la. te madame Sow xam na ne aussi li dëgg la ak waa ville. teraanga bu mu nekk rek. yéene naa ko Dakar. parce que Dakar ma vu nañ lu ma am Dakar ba ma ko maye. mais quelque part aussi dama naan peut-être que qu part en politique. am na fooy toll. tu mhm. dois être conseillé. tu mhm. dois être coaché. tu mhm. dois choisir les bonnes personnes yo xam ni ñoom ñoo la war a mën a jàppale di la wax dëgg. te duñ la jaay. Euh, tout dernièrement rek. Euh, quand il y a eu l'événement de Dubaï. quand tu es candidat dans quand tu briques des mairies pareil il faut pas distraire. ok dara warul a ébranler quoi. tu mhm. laisses tous ces projets là de côté et tu te concentres tu, te, tu focus. Mhm. vers fi nga jëm. Mhm. et tout est de là. mais sa yow da nga da nga jàpp ne warul woon dem Dubaï. non warul woon dem Dubaï il devait elle devait. très concentré sur surtout que au moment bi toutes les étapes bi gars koy jiñ que est avec euh, toujours dans la mouvance présidentielle non non en fait en politique il faut pas être dispersé il faut il faut assister à toutes les réunions mhm. dara warula échapper mhm. parce que une fois que ñu am le quorum on décide mhm. quand tu n'es pas là c'est pas en ta faveur donc il euh, devait pas être à Dubaï Ok, donc avant ñu ñëw aussi sur euh, ce commune donc on va parler un peu euh, du retour euh, du poste de premier ministre donc naka nga jàngatee situation boobu nag. voilà bon je pense que bon beaucoup d'encre on a fait couler beaucoup d'encre wax nañ ci wax yu bëri bëri bëri premier ministre bi voilà le président Macky Sall supprimé na le poste de premier ministre dem na ba mu yàgg bon ñu delluwaat na ko. ñu ci wax lu ne. Mhm. mais man waxuma ci dara. Mhm. jéem tële. nga delluwaat fu nga jógewoon à la case de départ c'est tout à fait normal c'est légitime mhm. et c'est stratégique ci période bu ñu toll nii Sénégal coow li bëri na mhm. wax ji bëri na mbiccoo mbaaloo xeexoo et mhm. mais le Sénégal ne doit pas être distrait parce que aujourd'hui boo xoolee sur le plan sécuritaire dëkk ñu wër amul benn dëkk bu stable boo xoolee Guinée-Bissau République de Guinée xool la Gambie qui est au cœur du Sénégal xool la Mali. xool la Mauritanie bërki dem ko rek ça s'agit mhm. kon dëkk bi fenn stable mhm. ñu le minimum de stabilité bi ñu am dañ ko war a préserver. Mhm. kon le Sénégal doit être distrait. et en plus de cette euh, recherche de stabilité boobu dafa am yeneen ressources yi nga xam ne dañu génn man je travaille dans le pétrole pendant vingt sept bonnes années. je sais de quoi je parle. je suis acteur quand euh, des bateaux venaient chercher du pétrole je suis acteur. Hmm? actif kon. xam naa li ñu am lan la te sénégal aussi il faut que ñu waxal wax leen li ñu am lan la mhm. ak lan moo leen ci war a jariñ mhm. ñuy sàmm seen dëkk mhm. moytu ay parce que pétrole c'est un produit inflammable te gaz le gaz est encore beaucoup plus inflammable parce qu'on a plus de gaz que de pétrole kon on a faire très attention et éduquer les populations en ce sens d'abord loolu la avant ñuy wax waxu kan mooy jiite parce que mooy jiite moo war a nekk la dernière question. Mhm. mais moo war a nekk aussi question bi gën a yomb. Mhm. mais pourquoi mu jafe. Mhm. kaay jiite lu tax mu jafe. parce que souvent on n'a pas confiance à la personne bi jiite. da ngay ràcc jëmale sa coté moo tax xeex xeexoo ak euh, xuloo bi bëri. mais bu doon bu fekkee dañuy jiite jiite ba nga xam ne jiite ba ca war la. bu normal kon tey nit ñi ku ci nekk boo tëddee da ngay nelaw quoi. Hmm. mais ay surtout dañ ko war a moytu daal bu man poste premier ministre supprime supprime supprimé woon na ko andiwaat na ko y' a aucun problème. Mhm. mais pour yow amul benn changement quoi. en fait vous savez euh, moi j'ai signé. Mhm. les les, euh, euh charte sur les assises nationales. nationales je l'ai signé avant le président. Mm j'étais conseiller à la ville de Dakar et j'étais président de la commission des finances et des mm -hmm. affaires économiques. Mhm. quand le président Macky Sall l'a signé il on n'est pas dans un régime parlementaire, on est dans un régime présidentiel. Mmh. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de pouvoir. Et euh, c'est son option. En tant que président élu par le euh, suffrage universel, c'est son option de mhm. choisir mmh. un régime présidentiel. tey mu supprimer premier ministre wala mu wala mu wala mu euh, nan lañ koy waxeeti encore. mu restaurer ah, ko. il mhm. y a pas de problème on attend le premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils doivent se dire qui sera le pro prochain Premier ministre. Mm -hmm. Est-ce que l'Union Yalla, moi, mon mon est un fédérateur, mhm. parce qu'après le président, c'est le Premier ministre. Mhm. moom moo koy wuutu ci ci maanaam ci liggéey moo ko par rapport ak coordination euh, avec les ministres ak yooyu. oui c'est c'est le patron du gouvernement. Mhm. c'est lui qui nomme ses ministres sauf les ministres d'État qui dépendent directement du président, président de la République mais tey li ñu ci bëgg rek mooy mu nekk nitu jàmm nit kuy jëmale Sénégal kanam ak mhm. Sénégalais yi quoi. ok donc ñu fàttali euh, candidat nga à la mairie de euh, Hann Bel-Air euh, sous la bannière de gox yu bees donc naka nga jàngatee un peu magistère u maire actuel Hann Bel-Air bon d'abord balaa may dugg ci magistère maire bi damay gërëm. euh, les personnes qui m'ont fait confiance, les structures qui m'ont fait confiance mmh. euh, pour me mettre à la tête de cette coalition en tant que candidat Gorubès mhm. à Anne Belair. Oui, euh, maître Abdoulaye Tine, mmh. qui est euh, euh, un, un, un, avocat international au barreau de Paris, mmh. le professeur Sidibé qui est à Sorbonne, mhm. et tous ces mouvements de la diaspora sénégalaise et euh, du Sénégal. Mhm. donc euh, gox yu bees c'est une nouveauté. Mhm. comme le Yewwi Askan bi comme tous les autres toutes les autres coalitions yi ñuy dégg. Mhm. ren la sosu mun nañ wax ni sax sosu na depuis 2016 ah. 2004 2016 commencé nañ ko préparer quoi. vous voyez mais lañ ren la ñuy soog a génne. Euh, dans l'activité okay. E Mais la vision a été là mm -hmm. depuis euh, 2014-2016. Okay. Et puis le plan stratégique aussi très clair. Mhm. Il a été mis en exergue et partagé. Mm -hmm. Et donc on est dans les activités. Ok. Donc par rapport euh, à que magistère ou Meng, l'actuel maire de anne donc euh, ban jàngan nga ci am donc par rapport ak euh, ses réalisation ak yooyu. Bon d'abord man. bu maire Hann bel doon tànn benn opposant à Hann bel man lay doon parce que man ak moom ànd nañ liggéey de 2009 à 2014 mhm. mais avant 2009 que muy falu mhm. xëccoo amoon na sama diggante ak moom parce que man euh, j'ai commencé à militer dans le parti socialiste mhm. et bi ñuy ñëw on ni venu sous la bannière Benno Siggil Sénégal au niveau de Hann Bel-Air il plus de PS que de AFP mais comme on dit encore comme la conférence de Yalta et bien d'autres conférences sa goxu commune wala sa dëkk le sort ñu ngi koy décider en dor du continent ou en dehors du pays ou en dehors de la commune et moi je suis contre ça et il était question que euh, Hann Bel-Air ñu jox ko AFP Point E toute la zone là ñu jox ko euh, AFP aussi c'était pour ne pas fâcher peut le président Moustapha Niass mhm. Mais il est fâché. Après, qu'est-ce qui s'est passé Le Benno s'est fissuré. Mhm. Il y a eu Benno avec Tanor, il y a eu Benno aussi Sénégal, que mhm. Niassa a gardé, et être troisième au niveau des élections de 2012. Mhm. Premier Wade, deuxième Macky Sall, troisième Moustapha Niass. Et qu'est-ce qui s'est passé au deuxième Tout le monde a soutenu euh, le président, l'actuel président Macky Et euh, euh, pour contre droite, qui est venu deuxième. Donc euh, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, euh, c'est que les mêmes choses se répercutent. Mmh. Aujourd'hui, on voit des, des, des, des capitaines politiques, mmh. que soit le bord, quelle que soit leur fonction, mmh. qui, dans des communes qu'ils ignorent, mhm. se permettent de choisir des têtes de liste, se permettent de choisir des dirigeants. Pour mhm. yëfu gox goxaat. Mhm. gox par respect. il faut laisser aux gens mhm. leur, euh, euh, leur dignité, mhm. leur personnalité, leur possibilité de choisir. C'est extrêmement important. Mhm. xam nga euh, dans la définition juridique du mot capable. Hmm, c'est extrêmement important parce que boo demoon xool lan mooy être capable rek déjà da nga gis paragraphe quoi. Hmm? Euh, les gens sont capables de choisir. leur leur dirigeant parce que ñuy dund ak moom. Mm-hmm. Anne Belair m'a vu naître. Moi, je fais l'école euh, Baragay qui s'appelait Anne Pêcheur, mm-hmm. qui était la deuxième école après Doudoumbach mm-hmm. de Anne, Anne, Anne Équipe. Vous voyez, j'ai eu mon entrée en sixième là-bas. Alors, je fais l'université de Dakar, bien avant, mais des failles école supérieure de commerce et autres. Comme euh, la commune qui m'a vu naître, les gens ont la possibilité d'apprécier. xam kan mooy Moustapha Diaw mhm. seen doom la mhm. euh, xam nañ jikkoom mhm. xam nañ ni mu juddoo xam nañ ni mu yaroo xam nañ ni mu màggee mais ñooñu ils sont mieux placés pour choisir kan la ñuy jiital. que benn dirigeant jógee fa la taxaw ni diw laa jiital. quel que soit donc euh, pour waxtu bi moo ñuy xaw a tënk tuuti donc euh, exactement yow lan nga pro lan nga bëgg proposer exactement population de Hann bel surtout par rapport ak euh, communes yi bon par rapport ak yenn gox yi fa nekk donc soo xoolee par exemple le cas de HLM des HLM Hann Maristes. donc hmm. ñu bëri ñu ngi naan xëy na da nga leen xaw a mairie mairie Hann Bel-Air leen xaw a délaissé. Mhm. donc lan ngay proposer concrètement en tant que candidat. bon euh, pour ñëw ci loolu rek déjà euh, man avant ñuy ñuy ñuy développer gox yu bees au niveau de de Hann bel mhm. naa coalition yu bëri pour créer la grande coalition. Mhm. au niveau d'Anne bel euh, la grande coalition c'était des jeunes de Maris suñu gox suñu yitte c'était euh, des personnes qui sont avec avec avec le mouvement avec c'était des personnes qui sont avec d'autres liggéeykat yi ainsi de suite quatre coalitions pour en faire une seule. Il y a aussi celle de Mme Baké aussi qui a créé sa propre coalition euh, Mme au Baké, niveau des maristes aussi. Euh, voilà, il y a mm -hmm. Mme Baké, donc il y a presque cinq coalitions mm -hmm. et c'est beaucoup. Mm -hmm. Quand tu comptes euh, cinq à gauche, cinq à droite, mhm. quand tu dis à gauche, à droite, je, je, je dis c'est par rapport aux terres, mhm. le train express régional. Mhm. Bon, c'est trop. c' est parce que tout simplement il y a manque de coordination. nit ñi waxtaanuñu ils n'ont pas assez de temps. Mhm. pour mieux euh, affiner les stratégies pour mën a dem ensemble. Mhm. mais euh, à l'impossible nul n'est tenu. Mhm. Euh, defuñu ko c' est pas très grave. on va vers les jours électoraux que le maire gagne. Okay. on va renouveler le conseil. mais concrètement qu'est-ce que vous proposez. bon li may proposé mooy que tey euh, Hann Bel-Air am na ay problèmes. problème yi mu am mooy que Hann Bel-Air c' est c' est c' est une zone maritime. Mm -hmm. man avant may nekk euh, liggéey dans des secteurs pétroliers et autres et tout man pêcheur la nappkat la quoi. ah. je me rappelle le premier poisson que j'ai pêché dama daw dem suñu kër quoi di ko wan sama maam mm. quoi pour wan ko ni jàpp naa jën quoi. Mm. waaye bon mën naa am sama premier salaire bi may def troisième toute l'année. dama pêcher pêche traditionnelle ah. je me levais à cinq heures du matin je vais avec les pêcheurs on fait le tour jusqu'à Soumbédioune un peu partout et ça me passionnait beaucoup. Mm-hmm. et je gagnais un peu d'argent avec. Mm-hmm. kon man pêcheur la mm-hmm. kon tey su ma tolloo fii tey di wut mairie Hann Bel-Air damay xalaat suñu mbokku pêcheurs yi. pourquoi suñu mbokku pêcheurs yi sauvé Hann on est à Fass. ici à Sénégal. il y plus Fass Payotte. ils sont plus à Fass Mbao. je dis aux populations de mais pêcheurs yi ñoo ñu sauvé. parce que bu ñuy yóbboo mbaaw gaal yi am mënuñu ñu leen yóbbu mbaaw. kon il faut ñu bàyyi fi pêcheurs yi. Mhm. vous voyez et puis village traditionnel la. kon nañ leen sargal. aujourd'hui on parle de la pêche et de l'économie maritime. Mhm. pourquoi ñu war leen sargal mooy dañ leen war a gën a jàppale d'autant plus que la pêche c'est un domaine transféré. Mhm. mais yi war nañ ko mën a gàddu yor ko. en 2009 suñu équipe municipale le premier projet SUWAD. il y avait il était question de mettre en place benn chambre frigorifique mhm. mais cette chambre là a été placée à Koumpentoum mhm. à des centaines de kilomètres de Hann Bel-Air mhm. mais loolu négligence su équipe municipale bi weesuwul loolu. beneen bi mooy que euh, tey économie maritime mooy gaal bi bu demee ba nappi ba ñëw. Mhm. Euh, dina jënd essence dina jënd appât dina jënd lu ñuy lekk ci biir gaal parce que euh, mën nañu am autonomie 6 jours. Mhm. ba pare bu ñëwee tibbkat bi tibb jën bi dañ koy fay kii waas jën bi dañ koy fay ki jaay mbuus dañ koy fay. Mhm. mareyeur bi transport dañ koy fay. c'est toute une économie. su taxawee rek bu pêchewul rek toutes ces personnes là se trouvent au chômage automatiquement. kon cluster la dañ ko jàppale si vous vous rappelez de la stratégie de croissance accélérée mhm. avec euh, euh, sama grand bi euh, Ibrahima Wade mhm. il y avait la politique de stratégie de croissance accélérée mhm. et on se on a calqué dans chaque commune lan mooy économie dominante économie dominante bi quoi c'est la marine c'est la pêche il faut développer la pêche mais tey dañu sooxee tey boo demoon foofu da ngay gis benn terre-plein c'est le port de pêche le plus développé au Sénégal mais il y que des tuyaux qui sortent de l'eau sale et c'est dangereux pour la santé mhm. donc ñooñu dañ leen yore njukkal la ñu war a dimbali jàppale leen mhm. encadrer leen mhm. beneen bi mooy soo xoolee à l'intérieur quoi bon on remercie le président Macky Sall pour le pavage pour la restructuration de la commune de Hann Bel-Air ça c'est extraordinaire c'est un bond en avant ok mais ça ne s'arrête pas là il faut de la sécurité il faut de la sûreté le boulevard du centre de la commune de Dakar l'ancienne route de Rufisque et sale, des portoirs d'ordures et de voitures abandonnées des, des épaves. Mm -hmm. Moi, je fais deux accidents là-bas, des voitures cassées parce que tout simplement, bon, par négligence, mal éclairée et tout, mm -hmm. on perd de l'argent un peu partout. Mm -hmm. Et ça bloque la circulation. Okay. c'est mal fait. Le TER, Train Express Régional, qui passe. Mhm. Mhm. Moi, j'ai une mission en janvier sur le TER. De Koloban à Djamnyadjo, mhm. il y a des milliers de personnes qui y travaillent. Des personnes qui viennent de hiérarchie du travail là-bas rafetlu ma ko. Mhm. parce que monsieur le maire bu génnee dugg ci société yi. Mhm. fu mu ñaan cinq cinq cinq euh, employés ñu may ko ko. Mhm. mais talu ko leneen la tal aujourd'hui euh, l' argent de la mairie le budget de la mairie c'est pas lui qui l'a bossé. ce ne sont pas les ñoom ñoo ko liggéey. mais ku ci nekk dëkk fa rek soo jëndee suukar ak warga am na loo fay ci impôt soo jëndee essence patente bi am na loo ci fay. publicité am na loo fay am na lu ville doon doon jël. mais ville jëlatu ko avec l' acte trois de la décentralisation donc alal jooju na ko jël delloo ko waa Hann bel mhm. ci ay structures marchandes. Mhm. ci ay structures yi nga xam ne ñëpp ci mën jariñu mhm. su boobaa maris du ñu mer. Mhm. dinañ gis seen bopp ci mbir yi. ok Maristes enclavé c' pas parce que c' est des bourgeois qui est blême ce sont des citoyens comme tout le monde. Mmh. il y a des pauvres il y des riches. comme mhm. à Hann Bel-Air des pauvres il y des riches. Mhm. xar kanamu euh, commune bi change na. mais nañ ko accompagner. ok Hann village j' étais là-bas jusqu'à 2 heures du matin hier. Hann équipe Hann village mais dafa enclavé. avec le pont là qui qui qui saute le le, le terre dafa enclavé. ñu ngi wax ñu ngi jooy y' a un poste de santé ñun bi ñu nekkee xale yu fa lañ doon dem mais tey post de santé boo ko rombee y' a pas de l' éclairage y' a rien du tout pour une grande population même pas benn centre de santé. Okay. un petit poste de santé abandonné. Okay. donc euh, bon xam ñu ngi ci jeexantalu émission bi mais juste une dernière question est-ce que pare nga pour signer charte de non violence. pour signer charte de non violence. man je signerai toujours partout une charte de non violence. Mhm. c'est une ne pas signer une charte de non violence. quel que boor bu mu mën a jógee. Mhm. mais ci biir loolu aussi euh, en parlant de Hann Bel-Air du ma fàtte le quartier qui m'a vu grandir muy Hann Montagne 6. Mhm. Mhm. sama kër fa la nekk samay waajur fa lañ nekk. mais tout le long de Hann je n'ai que des amis et des parents parce que j'ai eu la chance quand même d'habiter sur deux extrémités. Hein, dans mon parcours. Euh, entre Bara Gueye qui est l'extrémité une école et l'autre école Montagne et à propos d'école. Mm vous voyez aujourd'hui euh, angle Faidherbe le maire de, de Plateau a construit une grande école Bibi mais cette école-là doit inspirer tous les maires de la banlieue dakaroise mhm. papa yi sonne nañ ci fayum école papa yi sonn nañ ci fayum santé nañ leen jàppale ñu defar structure de santé yi bu baax ñu leen jàppale aussi ñu defar école yi bu baax ñaar yooyu bu ñu ko defaree bu baax mu am sécurité sûreté mhm. euh, ñu dimbali néew doo néew ju doole le social est extrêmement important mais bu social bi da nga koy def ci ku la faral ku ànd ak yow social bi uufal ñëpp jox ñëpp social ñi ko yeyoo mhm. ñu ngi la jaajëfal euh, Moustapha Diaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ah, jërëjëf maa ngi lay tàggu euh, Khalil Kamara di la jaajëfal bu baax a baax ci euh, opportunité bi ñu may mm-hmm. à travers ça ñu euh, gërëm bu baax sama benn xarit bu tudd euh, Sekou Montero mm-hmm. bi nekk Paris di nuyu aussi Cheikh seen xaritam ak vraiment sama doomu ndey yëpp ñoo xam ñu ngi ànd di liggéey sous l'égide du maître Abdoulaye Tine ku ma fonk la quoi ndax dafa yaru dafa màndu juriste la bari na xam-xam mm-hmm. ku mel noonu boo ko joxoon Sénégal Euh, gobar du jóg jaasi du jóg fetal du jóg te dinañ am jàmm ndax yaruna baax na te ñu mel noonu ñoo inspiré nit ñu baax ñi pour que Sénégal jëm kanam pour que Sénégal dox. man loolu laay euh, tàggoo. ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup à bientôt.